ay ca jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéen ay bàyyi xel seen bii di fekk TV ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni leen koy toppale yaakaar naa ne tey ñi nga xam ne fi ne Pikine tali bu mag ci xayma gi buñ ko waxee nag xel yu bëree day dem ci kan génn góor goo xam ni jàmbaar la woon bu bëree bëree bëri dañuy bàyyi nag Pape nuyoo moom waxtaan ak moom tey lu waral fi ñuy Pape maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa leen di fay di la nuyu bu baax a baax di rafet lu tey sa teewaay mhm. xam nga di nuyu tey suma frère yi ma fi fekk tey mhm. ñoom ñëpp ñii ñoo yor affaire organisation bi soo xoolee chaque année suñu yaay maire Yacine Doucouré ak doomam Khadim Diagne mooy organiser fii xayma bi sérif bi du fi ñëw ñun dañoo judd fekk fi sérif bi du fi sérif bi du fi ñëw kon tey lépp lu ñu jàppoon rek dañ koy bàyyi tey dégg nañu Pape Sarr day sonn ci mbëri Pape Sarr day sonn ci mbëri mais tey voilà xam nga loolu lan la woon xaalis boobu ma doon def ci mbër yi suñu maire Yacine Doucouré bii moo ma ko doon jox ak Khadim Diagne kon tey bu amee bés soo xoolee fii tey laaj Mbay Balla Karfa tey mbër yëpp ñoom déggoo mbër yëpp a ngi fi Daouda Sandis waa Lamsaari ñëpp ñu ngi fi tey taxaw suñu maire tey xam nga ñuy gàttandu bu sooba yàlla dimanche le 26 shérif bi moo fi war a ñëw kon ma si woo Pikine waa yëpp di wax ni tey maire bi ku yàgg sonn ci waa pikin lañu kon mbëri nañ ñëw tey taxaw ko. xam nga gunge gan bi ma ci woo waa géejawaay yëpp xam nga soo xoolee tey waa ay ay ay taalibe shérif bi ñu ngi géejawaay xam nga ñu ngi parcelle ñu ngi fépp maa ngi ciy woo ñëpp nag. mais dama gis nga sol yenn góor yoo xam te ne ju jàmbaare la woon. suñ borom jël ko fi bu yàggul dara. tey ma gis la nga sol setam tey lan la dañ koy rendre hommage. waaw dañ koy rendre hommage parce que lii tey kii lii tey. waaw nit ku baax la woon wax dëgg yàlla billaahi wallaahi su ma gisa su ma gisaan fii moom ma daan moo ma daan téye sama loxo yóbbu ma ba ci shérif bi shérif bi ñaanal ma waaw ah Pa waaw wax dëgg yàlla man léegi laa yëg ni sax dafa nelaw billaahi wallaahi yëguma ko billaahi wallaahi léegi parce que ma fi woon xam nga ñu koy ñaanal rek yàlla na suuf sedd si kawam xam nga yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw muy loo xamante ne tey lu ma lu ma lu ma lu ma marqué la mais ba tey Pape Pikine jëmaat ci bis boo xam te ni bis bu doy waar la. muy ngeen di bëre titre roi des arènes. Boy Niang Modou Lo. xam nga tey Modou Lo mu ngi jëlee woon titre roi des arènes bi gé parcelle. te ñëpp si Eumeu Sène te ñëpp xam nañ ni mu ngi ko bëree woon stade Léopold Sédar Senghor te mu jege parcelle. mais tey mu ngi koy indiwaat Pikine. mu ngi koy indiwaat Pikine. ma koy wax ni man du ci ut sëriñ. du ci ut gàllaaj. du ma du ma ko woon seetu ay njël Ama Baldé rek laa koy woon. lan <laughs> moo tax gën ay njël Ama Baldé koy xam naa ni loolu moo yàq làmbam. mais mais est-ce que yéen ngi sóoraale bi ñu koy jël ci yéen Pikine. waaw mu jël ko ci Eumeu Sène tey di war a daje Boy Niang est-ce que yéen a ngi sóoraale loolu. dayoo boobu dama dama jàpp ne man kese Pikine man maa koy sentir bu ko Eumeu Sène ñàkkee. ndax Boy Niang am na lu mu wax. Mhm. nee na keroog bi ko motloo di dóor ëmb seen muy daanu keroog daa jooy. du moom rek moo jooy. moom boppam rek la wax du booy ñaar rek moo jooy. ñu jooy bëri nañu. ñu jooy bëri nañu. ma wax ni tey sooy wër mbër bu am fulla mbër bu am sañ-sañ. mbër bu am fayda jàppal Modou Lo ragalul dara te bés du ko dépassé. waaye lenn moo koy dépassé ci bés bi. lenn moo koy dépassé ci bés bi. mooy nga won ko photo Ama Baldé. <laughs> mais Pape ah war nga Balde la koy dépassé. parce que ñun dañu benn affaire daf ñoo xaw a jaaxal tuuti. Ama Balde feebar na nga ni wër naa. mais est-ce que tamit andiwul coow loolu andiwul polémique Pikine. non munu koo indi munu ko indi man indiwu ma ko Pikine parce que man defar rek laa fi nekkee xëy na ñii di wax nii dañoo xamul rek yaa ngi may dégg sax parce que Boy Niang ak écurie de kenn génnu ci ne dañ ma jox Modou Lo bu kenn koo xamante ne génn na si communiqué mais soo toogee nag dañuy waxtaan dañu toog lu mel ni écurie Fallaye Balde ñu ne ñii ñooy membre écurie Fallaye Balde xam nga ñii ñoo yor écurie Fallaye Balde ñoom ñu génn ne libéré nañu Boy Niang lii wërsëgam la ah wax dëgg yàlla fa la wax yem. mais dama gisaat ay yenn supporteru Pikine yoo xam te ni ñu ngi biir Pikine génn def seen compte TikTok am yu ñuy wax. Mhm. waaw man nag yooyu du ma ko seetaan. man Pape Sarr man yooyu moom du ma ko seetaan man su ma gisee nga commencé wax moo xam ne wax jii nii. du luy defar rek. man damay damay pousser quoi avancé. man du ma seetaan mais est-ce que Pikine combat bi ngeen di bëre combat capital combat titre roi des arènes ajow ñu dajaloo waat Pikine tappe yi ngeen ñëpp ngeen. nekk dajaloo lañ nekk si defar la ñu nekk. bañ nañ ko ba paa yëpp ku ci nekk ñii di wax ñëpp ku ci nekk ñaa ngi ci groupe deux cent pour cent bi. deux cent pour cent mi ñi ma gën ñi ma mag fuuf ñoo ci nekk ñu ngi ciy waxtaan di ci communiquer nice xëy na ñañ yenn nit ñi ñoo comprendrewul yaa ngi ma dégg que mais Ama Baldé ak Boy ñaa non ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ku ciy wax ak ku ciy dugg ku ci seetaan Pokola rek ku ciy wax rek na wax ndànk ndax dama jël Cheikh Yéen keroog interview yi mu ne ma Pokola Baldé moom mu ngay seen ak sama mag bu jigéen ñoo bokk benn baay bu leen jur barki yàlla deret la ak waa kër Boy Niang ñoo bokk deret parce que Aas Mbaay moo ko jur te Aas Mbaay moo takkoon kiiwu Seex Ñang kon tey foofu deret la <laughs> voilà kon léegi ku ciy wax rek na nga wax loo xam man lu ma xam rek laa ciy wax <laughs> ak nu ma siy def ba jàmm am ci <laughs> kese mais mais ba tey booy Niang ñëwoon Pikine ñëw duggoon parcelle am lu mu fa def daan fa Garga Mbossé daan fa Dolfu daan fa euh, Garga Mbossé daan fa Dolfu daal di fay daan ki nga xam ne moom moo di Dolf. Mm. mu indi ay coo coow mu war a ñëwaat jëlaat Modou Lo. Mm-hmm. biir parcelle. non doo di suñ ñaan yàlla may ñu dam rek di ko ñaanal yàlla may ñu ndam maa ngi ci daje ak benn waayu Modou Lo bu ñuy wax Moussa Seras muy suma xarit nee na munoo wax ba ñu dugg kër boo ñaa ma ne ko yaa ngi dugg yéen a ngi yéen a ngi préparé di dugg kër gu bëri kànnaar. mais est ce que tamit ci préparation mystique bi pare. non ñun xam ne ñu doon filtré mooy siir écoute yooyu ko ci. mais mais est xel Balla Gaye di ko bàyyee Modou Lo. ko dara non non ba Modou Lo du ma ko bàyyi xel Modou Lo li koy li ma koy ko ma ne lenn laa koy won loo xam ne boo ko wanee xel bi dina dem mooy photo Ama amul leneen man duma ma dem Gàmbi du ma ut sëriñ du ma si ut dara man sama côté laa wax comme ni ma doon sonnee nii si combat Balla Gaye bi na nga won photo Ama rek. Modou boo ko wanee photo Ama moom. voilà xëy na defe naa làmb bi dina man loolu laa jàpp. kon daal kaguloo dara photo Ama dara photo Ama rek photo Ama rek. <laughs> ma pare muy ndaanaan parce que daje nañu si signature bi. waaw waaw ma ñëw mu ne ma kaay kaay toog ma ne ko nag damaa bëgg nga ñëw toog fii pour moom mu pour wan ni ñun ñëpp ñoo for. gis nga ni mu neexee amul coow amul dara. parce que tey lépp lu ma siy def rek si combat bi rek dinaa xool ci sëñ Masila. ndeysaan sëriñ Masila. voilà ak euh, sëñ Cissé. mu sëñ Babacar si. ñu bëgg Modou Lo lañu. kon maa ngi koy wax supporteru Pikine yi. nañu dem ñu xam ne nañu ëmb suñu mbër. ñu xam ne lii làmb la tamit ñoom dañ ñoo dalal su nekkee ni nekkuñu ay naafeq keroog bi ñu ñëwee stade de l'amitié ñun ñoo fekk si waa parcelle amul kenn kuñ fa xaañ amul kenn kuñ fa gaañ ñun tamit ñun ñoo leen di dalal euh, fii si arène nationale man maa ngi ciy wax Pikine waa yi nañu ànd ak dal war na ni tey ñoom ñaar ñoo encaissé seen xaalis te ñun ñëpp ay frère lañu yaa ngi may dégg sax dem na ba mbokk dugg si diggante parcelle dañoo dañu ay mbokk lañu ñun ñëpp man loolu ciy wax. di won ni di won ni tey ku jàpp ni combat bii dina dina yomb waa parcelle dina yomb si ñoom ñu ngi nax seen bopp du yomb de. mais du yomb ci Pikine. non du yomb ci Pikine mais du yomb ci du ñoom parce que tamit ñoom maa ngi leen di bàyyi déggoon rek. nee nañu dañuy dugg ci kër googu xam na nañu déggoon bu baax. léegi Ama fu mu toll wër na wala. si commencé na entraîné wër na. léegi la dugalagul réttal non wër na. ba pare maa ngi dégg ñu bëri ñu ngi naan amul dara ci làmb dafa tardé ah, ci làmb amul staff ci làmb Ama Baldé bu laa ilaaha illa Ama Baldé bi muy préparé Baipal xelam def na ci toj toj kër kër Falaay Baldé Papa Baldé moo fa nekk Zil Baldé Paate Baldé Demba Baldé Ama Baldé ñëw juddu di bëre ba toj kër gi yëkkati ko ñëpp xamoon ni kër gi du mel ama yëkkati fa jugal fa njabootam gis nga bu yenn yenn mbër yenn ñii di wax nii nii nii bu nekkoon seen kër bàyyi la dañuy xool ni ko jëndee pour seen njaboot tas mais ama defu ko staff bu bon dina def lool wala ko amul xel dina def loolu fekk sa kër baay nekk baraak nga yëkkati ko ba ci kaw tey bu nekkoon beneen mbër la nga am ay doomu baay sa xel du nekk ci dara lu dul xaaral ma jënd kër gi njaboot gi tas mais Ama deful loolu Ama daa jënd kër baayam yëkkati ko jël magam yóbbu Europe jël yaayam yóbbu Makka dégg nga kat kat yi mbër yu baax yi di dawal moom lay dawal dégg nga da ngeen di dem ñuy wax amul kër nañ dem laaj ko. wala yow ama amul terrain amul kër amul bi muy am kër mbër amul kër bi muy am kër loolu leer na ma mbër yi amaguñu kër. Mhm. mais ba tey tamit Pape am na loo xam te ni su ma ñëwee ba fii te laaju ko dina jaaxal lool ñu jëm ci la 5 mars. Sa Thiès Reug Reug noo gisee boobu ko 50 50 la. contre waaw 50 50 la. 50 50 la. ñaari mbër yi noo gisee. waaw parce que euh, ñu ngi naan Reug Reug dafa jël poids. Reug Reug jëlul poids de. yii vidéo yi ma gis muy daw muy daw nii. Ah. vidéo bi kii combat bi jëlul poids de. te ku ci xeex da nga ñàkk sa làmb. ku xeex ci combat da ngay ñàkk. kan moo ëpp avantage ci combat bi ci ñoom ñaar. maanaam bu ñu bëree Sa la bu ñu yéexee Reug Reug. bu ñu bëree jàpp ngemb. bu ñu bëree jàpp ngemb avantage bi ci Reug Reug la mais bu gaawee rek man Sa Thiès laay jox favori quoi mais bu yàggee bu ñu bëree cinq minutes te dara xew ah ah man dey dinaa tiital dinaa tiital Sa mais ñaari communication yi nga dégg nag ñaari mbër yi la ñuy waxante. lépp ci lamb la. loolu yëpp ci làmb rek la bokk. waaw naan rek dafa naag. non non non ñoom ñaar ñëpp kenn naagul ñoom ñaar ñëpp dañuy waxante waaw ñoom ñaar ñëpp ku si nekk soo xoolee sa sortie génn nga di wax voilà. dégg nga mais mais mais ba tey tamit Pape mën nañu xaar ci combat boobu dóor mu daanu am ci. non non non non non yaakaaruma ko si. yaakaaruma ko si non non non non non ñaari mbër yooyu du ñu ay mbër yuy xeex. mystique mën na ci feeñ. mystique si mën na si feeñ. du ñu bàyyi dara du ñu bàyyi benn détail du ñu bàyyi benn détail. noo gisee état wu Sa nag. non nice état bu jaar yoon entraîné na wax dëgg yàlla. tey tey ma laaj la boo andi woon Sa tey ci bis boobu nan la war a bëree mën a bëree rek tey boo ko doon conseillé. bu mu dépassé cinq minutes. dina xeex boobu. waaw bu mu dépassé cinq minutes xeex ut bu buntu la rek mais su ma indi woon Sa di ko conseil combat bi mu weesu cinq minutes. bu ma indi woon Reug Reug tamit naa ne ko nag ne téye ko. yàggalal cons consal combat bi. Mm-hmm. xeex bi kan la gën a ñëpp duñu ay xeexkat. waaye mm-hmm. mm-hmm. ku ci xeex daanu. ku ci xeex da perte sa làmb. mais Pape tamit. ma beeg ski bi kañ la ak date bi kañ la. waaw le 26 la muy dimanche bi tey ñu siy woo waa Pikine yëpp. di si jiital mboru Pikine yëpp di si jiital autorité yi. di wax ni kenn du du ko Doucouré. sama waay man damay tudd ay biraan rek. di tudd ay Kéba Kanté ak yooyu mais maire si Mbi képp ku ma fi indi mu taxaw la muy ku feebar nag surtout ku feebar ba pare day maye maye muuma su lay jox nit sax du ko yëg suy dimbali ay nit bu feebar ñu may ko indil nit du ko yëg bëggul sax ma wax ko kon maire boobu dañ koy ñaanal moog doomam Xaadim Diagne yaa ngi may dëgg ma woo Pikine yëpp dañuy war a ñëw baas fii suba maa ngi ciy woo ñëpp ñëw taxawu ko comprendre nga. di di wax nag tamit tey suñu rak suñu doom. muy Pakola Balde. am na combat